nii parce que yow Bruges moo la abal euh, Galatasaray moo la abal Bruges ak situation bi ni mu demee nii gis naa ni fan yi sur les réseaux sociaux Galatasaray ñëwaat na en force sur les comptes euh, est-ce que da dellu Galatasaray waaw Galatasaray c'est très possible ma delluwaat foofu waaw instant nag euh, comme ba léegi nii boo xoolee jour Bruges là il faut que janvier ñoom grâce à ça am na libéré benn jour étranger pour mu mën a dugg si waat comprendre parce que noonu la ko nombre d' étrangers et Galatasaray yaa ngi gis sur réseaux man xamul loolu bettuma waaw ku ne ni ma koy waxee rek yàlla daf may suturaal chaque fois parce que te ñoom lu ñu yaakaaroon ci beneen jour gisuñu ko te man anam yi ma fa def nu mu gàtt gàtt ni mu ko dure ñoom kenn defu ko si. man du ma dara waaye xam naa li ma xamante ne yàlla may na ma ko foofu si terrain bi léegi nag man tey su ma delloo Galatasaray yàlla xaw ma nag dinaa delloo dellu mais probablement moom moo gën a yomb tey ma dellu fa moo gën a yomb parce que am na loo xamante ne mënu delluwaat Bruges di ko dund comme ni ma jot a dund nii rek doy na quoi voilà moo tax euh, dama soxla delluwaat sama niveau jouer wala loolu kon c'est probable ma delluwaat Galatasaray waaw pour jeexal équipe nationale dafa mel ni après Coupe d'Afrique bi coono yi bon. bokk na aussi peut ci li nga xam ne mhm. euh, xam naa war na la manqué en tout cas nga bañati fa nekk te gis nañ attaquant yi tamit ni ñu fëlee ci équipe bi. Mhm. loolu lan nga ñu wax. waaw waaw gis naa performance attaquant yi vraiment top man ah. man égoïsme duma joueur bi nga xamante ne damay forcer sa équipe nationale comprendre nga. Mm. dama ñoroon ma bëgg ñëw équipe nationale parce que li ma bëgg la suma dëkk la te suma beneen morom bu nekkee si équipe bi di dugal aw ma leneen lu mu si wax lu du kontaan ah parce que bu doon mal la tam ma nekk foofu di dugal sa place am c'est normal keneen du ñëw waaye man li ma mën a intéressé mooy man xam naa suma ma delluwaatee suma niveau bu dee but rek moo tax ñuy woote dinañ ma waat loolu laay ñaan continuer après équipe nationale mi ngi sama kanam tu Euh, parce que man ba may dem Bruges euh, bi ma nekkee Bruges man coach bi waxtaan ak moom Alioune tu vois mu ne ma fils mu ne ma mu ne ma dellu si sa niveau nga joué hymne national ubbeeku na pour ñëpp amuma ak yow benn problème ma ne ko amul benn problème bon waaw maa ngi xaar rek reprendre sama niveau si Bruges boobu dugg parce que man man waroon na man ne Bruges suma coach bi moom xam na ko coach bi maa moom jubóo ñu nag mais xam naa ne il est pas content sama man ma joué comprendre nga. parce que du lépp li ñuy wax peut-être mën na ko gisee leneen tu vois parce que man ba ma ñëw foofu moom moom indi foofu président bi si boppam man moom indi foofu man maa man mosuma ko xam mosuñu wax. bu ma ñëwee yëpp maa ngi commencé di jàng tey mënoo dugal benn jour si ay match mu lay dugalal nga koy indiwaat di ko tegaat même pas di ko doo ko géoloo tu vois et après laa commencé comprendre yu bëri mais tey moom loolu du arrangement am tu vois xam na ne dañ ma prêté mu am ay jour am yi nga xamante ne ñoom ñu ngi fa ay trois ans quatre ans. si normal mu joué leen sinon ñoom dañuy buudee wu dem parce que man xam na ne man du ma toogaat foofu deux ans c'est impossible parce que Bruges Ligue des champions mu fa yóbbu pour ma joué ko ñoom loolu moo leen tax ñu woo ma du parce que tey du ma bàyyi Galatasaray di dem Ligue di dem joué euh, Bruges parce que <laughs> pour man man moom moo gënal exemple soo loolu moo ko waral mais exemple après mu demee ba xool ne xam na ne kii joué wutul Ligue des bu xamee ne joué wutul Ligue laa commencé commencé dof tu vois mais garaawul am problème de li am am na ba pare ligue des champions jeex na nañ la page waaw voilà defaree waat